A'udzu billahi minas syaitanir rajim. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak julidi, bak talibi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Del ci wat na ñu di and ak seen télévision SSTV. Di len baxé nafilé nga xamni mom lañu amal ci wéru koor gi. Guddik fukel da ñett ku ci julli ñaar rakka bu ci ne mu jàng ci faatixa benn yoon ak xul huwallaahu juróom juróomi yoon des na ko ca tabaxal njënni lu rëy ci àjjana loo xam ne dana am juróom-ñaari néeg yoo xam ne lépp wurus lay doon néeg bu ci ne dana am junni lal lal bu ci ne soxna dana ca nekk te des na ko ca bindal tuyaabay ku woor ñaar fukki at ak ku julli junni ràkkaa asalaamaaleykum mbokk jullit yi ñu ngi leen di siyaar di leen nuyu bu baax a baax a baax waaye di ñaan rek képp ku gis vidéo bi nga def fatiha ak fukki lixlaas ak benn ak salaatu ala nabi boo man nga ñaanal wayjur bii nga xamante ne si nii moom moo fi bàyyeeku nga xam ni dafa amoon solo trop nekkoon ku baax ku jullitee muy El Hadji Mor Seck ñu gën ko xam ci Baye Njóoba yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljanna